yëpp changement bu gaaw bi kañ nga takk jabar samedi xaw ma dimanche. waaw mais ma rek ma daana ndax émission bi fi mu toll nii sànq ba tey El moom nga ma yàgg may tutoyé ci émission bi ma dama am jëkkër de. nekkatuma célibataire marié laa comme yow. d' accord léegi may ma may eggali El Hadj dimanche nga takk soxna nga dugg ci cour des grands. mais man man ndekete damaa ñàkkoon fayda. ñàkkoon jom ndekk de sali batir gën a mbon ci lépp yàlla bind maa ko wax man El Hadj Keita jël leen ma dagg leen loolu jël leen ma maa ko wax El Hadj Keita sali batir sali batir gën maa ngi lay gis léegi nii yaa ngi tooñ célibataire yi te gis naa ne keroog sa jour mariage Tarba Mbaye dafa ànd ak yow te moom amagul jabar El la moo gën a ñàkk fayda fii <laughs> lan léegi man ku takkul jabar da nga ñàkk fayda Tarba Mbaye dafa war a Sidi Diop Tarba Mbaye non moom moom dama ko xaw a rus sama sama waay la moom moo dama ko rus quoi xaw rek mais xoolal moom moo dama ko rus Pama Dieng ñàkk fay da nga def Sidi Diop ñàkk fay da nga def Tarba Mbaye ñàkk fay def xaaral ak kan kan rek defal nànk rek kan am na am jabar moo moo ñu njëkk moom moo ñu jabar moo njëkk takk jabar moo njëkk takk jabar El Diaz waaw man daal man daal dix mille problème gën a ñàkk fayda rang muy takk jabar waa yow <laughs> dix mille problème re rang muy takk jabar yow rang damay jël sa dara jël